li fi wal cim ndox ba jur fi waame ëpp na ba tuuru kenn dafa werantewul ne ndox mi ci yàlla suñu borom lay bàyyi bàyyikoo te kenn baaw naanu ko da ko neex mu sotti ko ci suñu kaw waaye bu ñu fàtte nag ni kii di Macky sàll ñu fi falu tey ak ñoom waa benn Bokk Yaakaar ah, ba ngeen di laaj réew mi la ngeen leen doon wax moo di mën ci mbënd mi dara loolu dafa yàggul dara ba fépp fu ngeen demoon ca ndox ma la ngeen leen doon wax mooy bu ñu faloo lépp jeex ñëpp féex ngeen falu ñëpp yi féey caatum 2012 ah, ba ngeen faloo dëgg la bokk na ci palang bi ngeen njëkk a samp mooy lu xeex ndox mi que mbënd mi du rek Dakar waaye Dakar la ak biir réew mi yëpp programme yooyu nag euh, am nañ si déjà euh, ay partenaires lu ci mel ni programme bi ñu tuddee programme bi dàq maanaam bi yóbbu ndoxu taw yi euh, dina tàmbali ci atum ren kon fii ak déwén daal mën naa jàpp ne li ci war ñun dinañ ko def te xaalis boobu dana dana dana yemb. bu yemul woon ci wax ànd ak jëf. kon tey ñëpp gongo la ñuy wax waaye mbaxalum doj ngeen ko def di upp askan wi toog di xaar mu ñor ngeen yàq ca ngeen tas seen yaakaar te lépp ngeen xamoon ndax nit du nax boppam waaye milliards yi dafa war a leer ci ana fan ngeen ko dugal dugal ci biir réew mi ba gis li fi ndox mi def bakkan yi ci rot jege na fukk ca sigi kër ya ca ndox ma mëdd ëpp na ñaari téeméer boo xayma ña fa doon yeewoo xam ni njaboot yu bari tey biti la ñuy fanaan metti na lii ci tiis ku ci sa kër tooyul sa xol tooy na ci ñu bare ngi dëgguñu seeni tànk ci askan walaru cëy bu doon ci jamonoy campagne électorale fowukaay la ñu leen di def di tëmbaka xuus ak a fotowu ci seen kaw ak seen ay ñaari saakoy ceeb waaye ñu bari ñaare ci askan wi lu ñu leen def mérite la ci ñoom bu ëllëgee ba ñu soxla leen lu ñu leen boqal ñu fàtte ne ndox mi jaaroon na fi te nag bu ñu waxante dëgg mbënd bi ñëpp la mën a bett ba mu des kilifa yi ci nguur gi ñi leen àxtu euh, ci ne ren ndox mi dana bari du jeex du xaaj ñu topp dialogue politique bi ak dialogue national bi te la ñu ca tënkee lépp dara du ci njëriñal askan wi lépp seen njëriñal bopp la ñoom politique yi bu ñu fa waxtaanee woon nawetub ren bii lii ñu dal duñu ñu mës a ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te ndakaar ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew